jage si leen déglu leen am nañ xibaar indi leen jage si leen déglu leen am nañ po mu bees indi leen lu bees ci sa émission da ngay seetaan journal rappé yónneel A wala B wuyu laaj bi ngir gagné téléviseur LED bi yan ñaari rappeur ñooy def journal rappé A Xuman ak Keyti B Omar ak Fred kon gaawal yónnee sa SMS ci 26 999 ngir gagné téléviseur LED bi waaye nag yamul foofu mën nga gañe tamit ay tablette ay enveloppe bu ñaar fukki junni enveloppe bu fukki junni ak yeneen i ngañaay kon nag yónneel gaaw A wala B ci 26 999